salaamaaleykum maa ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam man maa ngi tudd madame Maron Dior Camara maay infirmière chef de poste bu amoo 5 dañoo ñëwoon fii tey nag ci formation ci jeune njaarim Limaamu lay ñoom ñu jël seen vraiment seen décision pour ñu accompagner leen former leen pour ñu dugg ci xeex Covid 19 bi parce que ku nekk xam ne Covid 19 bi reculé woon na waaye dellusiwaat na ci deuxième vague bi te seetlu nañ ne deuxième vague bi dafa moo gën a metti parce que boo seetloo tey. cas communautaire yi ñoom ñoo ëpp cas contact yi te cas communautaire tant que ñu ngi koy am tàqaliku ñoo Covid bi kon nag bu seeni limaamu njaareem limaamu laay tey jógee def engagement ne ñoom ñooy jóg xeex Covid bi vraiment loolu dañ ciy sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi tedd bi sallallahu alayhi wa sallam di leen ñaanal lii ñu commencé yàlla nañ ko commencé ci bismillahi rahmaani rahim eggale ko ci alhamdulilahi rabil alamin ndax jeunesse bi bu jógee ñoom di sensibiliser dina gën a yomb ci personnel santé bi ndax jeunesse bi ku nekk sa kër ngay commencé Comment ci sa yaay sa papa ak sa rak ak sa famille bu leen jeunesse bi sensibiliser kër gu nekk def kon ne Covid bi dina parce que Covid bi ku ne am pour ko rek la prévention te prévention bi les méthodes barrières takk masque def distanciation sociale di raxasu éviter regroupement yi surtout plage yi éviter grand place yi éviter cérémonie familiale yi suñ ko defee rek yàlla

ku feebar nag duñ nak duñ leen ko wan parce que loolu du suñu mission suñu mission moy ñu xeex ba Covid bi jëk fi légui nak liñu ñu mën di leen sensibiliser pour ñu gëm né vraiment Covid bi amna fi té mi ngi def ay ravage té xeyna bu ñëpp andé boole suñu doolé def méthode barrière yi li leen ko waxé ñu wañu regroupement tak masque fu ñu toll surtout ci lieu de regroupement ñu tak masque di raxasu ba set ñëpp def ko daal yalla mëna def Covid bi jóge fi. waaw euh, jotaay bi lu ko waral. mooy ay jeunes yu jël initiative bi ñu jëlee initiative waxtaan ak maire na ñoom dañoo bëgg dugg ci xeexu Covid bi muy engagement communautaire boo xam ne maire Ndiarème Limamoulaye commencé na ko woon. parce que maire Ndiarème Limamoulaye moom avant Covid bi di déclenché wu dans Guédiawaye même dans le Sénégal moom dafa jëloon ay dispositif am ndaxte dafa amoon euh, benn revue trimestrielle bu ñu defoon. mu concerné won ben maladie mais biñu waxé dañuy lutter ben ci maladie bobu dans la commune de Ndiarème Limamoulaye ci la ne comme Covid mu ngi Chine nañ ko xaar mom ci la commencé won ñuy def euh, première vague bi mu am ben riposte riposte bo xamné autorité sanitaire yi dañ cee taxaw mais autorité sanitaire yi si ouletu médecin chef bi ak ICP bi ñu xamné riposte bi pour def ko il faut engagement communautaire Nous engagé aussi. et la commune de Ndiarème Limamoulaye et la commune la moins touchée de Guédiawaye ñu regardons une deuxième vague parce que nous, ñi vu les gestes barrières Les jeunes nous na on va redéfinir le combat pour qui euh, deuxième vague parce que le ministère est là deuxième vague bi c'est plus virulent nous, nit ñi dañoo bàyyi seen loxo nous dinañu permettre ñu jëm ci geste barrière bi nga xam ne responsable sanitaire bi ICP bi wax aussi si jeunes yi boo seetee les plans ñun dañoo def tamit impact dans la société parce que deuxième vague Sénégal attanatu ko Sénégal attunu ko parce que ci école yi ci dispensaire yi même école yi gis nañu lu ci am euh, bu amaatee ñu nar a arrêté école yi day gën a wàññi quantum horaire yi ça fait ñii dinañ leen former ci Covid mais dinañ leen former en même temps ci conséquences yi mu mën a am ci société bi ñu toog ci biir kër yi wax ko et léegi nag ñu ngi gërëm jeunes yi nga xam ne ñoo porté le combat parce que après seen yaay fi nekkoon l'union communale des femmes de Ndiarème les imams les chefs de quartier ñoom it ñu jóg et tey jii ñoom. en tant que entité ñu ngi def un développement social un développement économique sanitaire te ñu leen siy jaajëfal et loolu dina dalal suñu xel parce que xam nañ ne kon relève taxaw. Euh, en tant que yaay euh, lan laay wax c'est que Sénégal sénégalais yenn saa yi euh, day woyofal dara mais tey war nañu éviter rassemblement yi dëcc yi war nañ ko éviter mariage yi war nañ ko éviter dajaloo yi war nañ ko éviter mais. Euh, sénégalais yi bi ñu waxee tendance baissière rek dañoo yaakaar ne jeex na mais tendance baissière tant que affaire bi nekkul zéro cas rek waruñu wàcce suñu loxo mais léegi nañu insister rek ci geste barrière yi parce que la répétition est pédagogique man suma ma ko nangoo kii nangu ko mais nañu dem ci ku ko nanguwul rek parce que ñun ñëpp c'est la société. waa daja tey bi dañoo on est parti d'un constat bu ñu defoon. par rapport ak li nga xamante ne ni moom mooy si deuxième vague bi ñu jëm ñu gis ni Njaareem Limaamulaay am na benn taxawaay bu am solo bu ci nit ñu taxawoon ba nga xamante ne ni bokk na si ñi nga xamante ni ñoo gën a fës ci xeexu Covid bi bon ñun tamit ndaw ñi ñu gis ni ñu ngi dem si deuxième vague te ñun ndaw ñi am na rôle bu am solo bu ñu ci war a mën a jouer ñu ne pour quoi pas en tant que jeunesse républicaine bokk ci partie tamit politique teewul nga def des actes parce que président bi moo ko njëkk a digle kon ñun war nañu mën a taxaw xeex pour Covid bi jóge fi ku nekk nekk ci sa jàmm ak sa ci salaam looloo waral ñu ne nañ fi nañ dajale jeunes yi parce que balaa ñuy dem ci terrain bi tamit foog ñu am jumtukaay yi nga xamante ne nii moom lañuy demee ci terrain bi moo waral ñu woo bàjjanu gox yi woo ICP yi woo ñi nga xamante ne nii ñoo ŋànk commune bi ñu ñëw ñaax jeunes yi former leen ba nga xamante ne nii tey buñu ñu ci terrain bi dinañu mëna permettre ñu mëna def suñu communication normalement té duñu heurter kenn dinañ bëgg jallalé jàllale lu ñu bëgg a wax ak ñi ñu bëgg waxal looloo waral dajja bi tay ñu ne nañ fi former jeune euh yi nga xamante ne nii ngi ci biir commune Ndiarème lay bi buñu ñu leen former ba paré après ñu commencer nak def descente ci terrain bi pour sensibiliser conscientiser delloowaat nit ñi tamit ci ci li nga xamante ne nii moom mooy bi fi am que ni ñu jël ko euh lo ne nii ku nekk def ko. sa mbiru bopp moo waral moo waral suñu taxawaay tey daf ñuy daf ñuy gën a ñaax moo waral tey tey bu ñu gisee ay jeunes jóg taxaw dinañ ñoom kat dinañ ne ah affaire bi kat ñu nit war nañ ci mën a taxaw parce que combat la boo xamante ne nii dañ ci war a invité ñëpp combat boo xamante ni la que nga def politique nga ñàkk def politique un acte citoyen pour ñu génn ci lii pour nit ñi tamit may ñu suñu jàmm suñu salaam pour ñu mën a continuer suñuy activité normalement nañu digle nañu nañu def li ñuy digal ba nga xamante nii tey

Euh, Covid bi lolu rek mo waral tay tax ba ñu gëna mëna taxaw parce que tamit ñak ka gëm bi daf ñu daf ñuy gëna sonal parce que fi ñu tollu affaire bi duguna ci étape bo xamantene ni bon après sénégalais lay titalat légui ñun nak mo waral taxaway bi ñu am tay pour mëna gëna sensibiliser surtout suñuy morom yi parce que tamit ñom ñoo gëna difficile pour waxal mais buñu ñu gisee seeni moroom ñëw di taxaw ak ñoom di wax ak ñom ñom dinañ gëna mëna jël affaire bi def ko seen mbiru bop ba ñom ku ci nekk sensibiliser seen waa kër